alwaxtu waxtu yan xasimu sunu boroom da ko séddale lil muxtaari dafa am muxtaar mooy numéro un ca waxtu wa fa ñu ko taamoo wali daroori yi ak numéro deux fa nga xam ne mooy deuxième temps bu dee da am ngànt kon waxtu julli wu nekk ñaari taala am bu jëkk ak bu ñaareel la dal axbaari ca fóore ya nga xam ne way dégg fiq lañu muxtaaru suxrin muxtaaram waxtoow tisbaar min zawali samsi ma nga tàmbale fa jant ba jàngar ñi ko tiim sa diggu bopp ba romb diggu bopp ba jëm saw muxtaaram waxtoow tisbaar tàmbali na su boobaa dangay gis sa takk ndeer yow jëmm ji taxaw mu génn ba toll ni jëmmi satala fa tolloog say tànk dox jëm penku moom takk ndeer ba mu nekkoon foofee la muxtaaram tisbaar tàmbale di dem di dem di dem li aaxiril xaamati ba sa takk ndeer màgg ba toll ni sa jëmm ba toll ni sa guddaay yow nit ki loolu yépp muxtaaram tisbaar la mat na waxtoog genn wàll mba ñaari waxtu doona labsi ci lu genn lënt loolu mala la joxoñ mooy muxtaaram tisbaar tegal sa baaram ma ngi lay jàngal weneen waxtu bu nuppee jàngalaat la ci yaari waxtu yooyu leneen wal xasru muxtaaram muxtaarun muxtaar moomee di joxoñ muxtaaram julleeg tàkkusaan nag laxaa ca jëmmi julley tàkkusaan min tàmbalee na foofee sa takkandeer tole ni sa jëm ilaa waxti isfiraarin ba egg ca waxtoo gelak suuf kon bu sa takkandeer tole ni sa jëmm ba tàmbalee sut sa jëmm tàkkusaan commencé na fa la Muxtaar ma nekk muy première taam di dem di dem ba suuf si gel maanaam suuf sépp orange ba xonq loolu yépp muxtaaram waxtu tàkkusaan la laal yooxi waxul nag mu dem ba jant sode aa ah, ah. dina dem moom muxtaaram tàkkusaan ba fanweeri minit wala ñaar fukki minute ak juróom te jant so ixilaa na nga xel yow mi jàng sa diine kon joxoñ na la muxtaaram tisbaar fa mu tàmbalee ba fa mu yem joxoñ la muxtaaram tàkkusaan fa mu tàmbalee ba fa mu yem mu di la joxoñ nag ñoom ñaar boo leen julliwut ca seen waxtu ca muxtaar ma deuxième temps ba nga xam ni boo ko ci jullee ndax ngànt tamit am nga ku ko julli yoolab ku julli muxtaar ma deuxième temps ci ñaar yooyu tamit ñooy ànd ama daroori ndaal seen deuxième temps mooy seen waxtu numéro deux li asey ni ci yaari waxtu yu julli yooyu maxan mboole seem ñu doon la ko wax léegi muy tisbaar ak takkusaan mu ne seen deuxième temps falil xurubil yuuxi daa dem ba jant so kon ginnaaw fa ñu joxoñ ne la mooy ñaari moxtaare fa mu yem ba keroog jant so foofi jullee rek te jublu ca tisbaar am nga tisbaar ca ëram foo fi jullee te julli ca tàkkusaan am nga tàkkusaan ca ëram indaman ca ñi nga xam ne waxa wattu nañu xam-xam ca fóore ya wattu xam-xam fekk noonu mooy moxtaar dërër yi premier temps ak deuxième temps ci ñaari julli yooyu bàyyi na foofu ma lay jàngal julli beneen muy timis ak gée ñoom tamit ñoo ànd wa maqribun julleek timis muxtaaruha muxtaaram muy fañ ko taamoo xul waxal ne na mu toll mooy xadruma tusalla fii mooy diggante boo xam ne mën nga fa julli julleeg timis loolu juróomi waxtu la tegal ne juróom ba de sartin ginnaaw sarti julli ya sarti mooy sollu laab laab neefu laab ulimaaca lañu xam waajal bërëb bu laab taxaw ci lu laab di julli loolu mooy ba da sartin ginnaaw sart ya nga xam ne ulima xamees na ko loolu yëpp boo ko waajalee daf lay jëlal fukki minute ak juróom ak yàggaayu jëmmi julli gi muy ñaar fukki minute ka sitaril xawrati lu mel ni sutural sa awra sol ay yére wa xabasi ak laaba xabas yére ya laab bërëb ba laab fa ngay taxaw laab saw yaram laab xabla aza nay lu jiitu yaari nodd ye loolu yëpp pare temps yooyu lépp la lay joxoñ ah wa toxuril ak laab ak xadas ba nekk ca njàpp boo ko boolee lu lépp fanweeri minute lay doon mu ne boon jàppal ne maxtaaram timis daal fanweeri minute la aywa bàyyi na timis waaye nag dina la ca ñëwaatal tuuti bàyyi dalay wax ci gee ba noppi doog a boole gee ak timis wax ca sumal isaaw topp waxtoo moxtaara julle gee nag min maqii bi safaxi ma nga tàmbalee ca fàddoog safax nga ne luy safax mu ne bu jant soyee di nga gis niir yu xonq ca saw loolu mooy safax bu ñu fàddoo nag maanaam bu ñu ba andi ñuul kuk moxtaaram gee tàmbali na mooy min maqii bi safaxi tukki na ca fàddoog safax bu niir yu xonq yooyu demee ba andi ñuul kurum kon safax fàddu na mu ne gee tàmbali na muxtaaruha muxtaaram ma di dem muxtaaram gee di dem li sulusi layli itaqi dem ba nga xam ne boo xaajoon guddi gi ñeenti xaaj lekk nga ñetti xaaj ya kon cinq heures matin la loolu yépp muxtaaram gee la taq na nga ragal yàlla oh ndeysaan kon gee lu yaatu waxtu la tàmbalee na fii timis weesoo rek di dem ba cinq heures du mu la jàngal nag deuxième temps wu gee ak deuxième temps wu timis suma daroriyu al isaa topp nag daroriyu julleeg gee muy deuxième temps am wal maqribi ak daroriyu julleeg timis muy deuxième temps am ñoom ñaar seen ñaari deuxième temps ma ngay dem ma ngay dem ilaa tulooxi saadixil fajri ba ca fenk ak fajar kon ñoom seen deuxième temps daa dem ba nga xam ne boo leen jullee rek mën nga caa teg julleeg fajar ñooñu tamit seen deuxième temps gudd nañu ñoo ànd ndeysaan foofa jullee diggante yow yépp la ñuy wax timis am nga ko ci waxtoom njem gànta la taxoon nga yeexee ba mu yegsi foofa jullee jullee gee am nga ko ci waxtoom njëm ngànt taxoon nga yeexe ko beeg si foofu bu ngànt taxul na nga yeexe ko beeg si foofu am nga yoolab julli julli ga waaye am nga nag bakkaarab yeexe julli ga kon ñoom tamit seen deuxième temps dem na ba ca julleeg fajar un subi foofe la askano seen deuxième temps ñoom ñaar kay firi nag mën na jàng ne seen deuxième temps muy Gaye ak Timis unsu bi ma askano ilaa tulloo i saadixil fajri ba ca fenk ak fajar kon lu yàgg la wàcceel na nga def muxtaaran muxtaar li suppi ñeel julleeg suba nag min foofee la tàmbalee moom ilaa isfaarin ahla ba ca set fajar gë gën kowe bam leer nañ ba koo seen xàmmee ko daa xisam daa ñuul nga xam ko ban xeetu yére la sol nga xàmmee lool loolu yépp moxtaaram julli suba la xat jalaa ba feeñal nañ lil wujjoo yi ñeel xar kanam ya ko seen xam ne kee di wa ba mu leere noonu ba nga mën cee xàmmee noonu teewut yi lépp yaa ci moxtaaram fak julli suba wa mabdaahu doroor yi tàmbaleeb Delorier muy tàmbaleeb deuxième temps temps julli suba nag minhu foofee la tàmbalee ca leer leer booba di dem di dem ilaa tuloohi xursi samsi ba ca catal fenkal jant ba waahi bilxilaa jantab ka nga xam ne mooy maye xeewal yi di sunu boroom ba ngay seen catal jant lay fenk loolu yépp mooy deuxième temps julli suba kon tamit lu yaatu la sumal xaddaaw topp nag fay boru julli fil jamiihi ci mboolem xeeti waxtu yooyu ñu la joxoñ yanta mi ma ngay askanoo nag nga yeexa ko li ba di sil aw xaati boromb ginnaaw waxtu yi ñu la joxoñ nag indal xakami ca ñay waroom a xereñ ci xam-xamu fiq kon loo fi julli ci waxtu yooyu ci diggante yi ñu la joxoñ julli nga ko ci waxtoom boo ko yéexee nag ba waxtu wa ñu la joxañ passé la nga def boo jullee julli nga waaye fay bor julli la tudd ca waxtu we ñu la joxoñoon kon kuy fay bor mooy ka yéex yéex a julli waxtu ba fi la joxoñ passé kooku nag moom la ñuy waxal fii wan mi na nga askanale asima zen bi ba kër bu rëy lil mu waqari ca nga xam ne dafa yéexe julli ata tafootuhoo ba mu raw ko waxtu yooyu ñu joxoñ bilaa onsrin tamut ngant du rëy ngant lu ñëpp xam kooku am na bàkkaar bu rëy wa baax du suppin ginnaaw juleeg suba li tulloohi samsi ba keroog jant yi fenk kuriha sib nañu naflun ees naafila foofe kon ginnaaw juleeg suba ba jant fenk ba dox ñetti mètre kenn dutul naafila dañ koy tere laa xadda ul man sii terewuñu nag ku yoroon bari juley farata di ko fay ci diggante boobu mën na ko kooka moom sañ na koo def wabadu asrin ginnaaw tàkkusaan li salaatil maqribi ba keroog ñu julli timis dañuy tere ku fi naafila dañ koo sib wabadu fajirin ginnaaw julleeg fajar diggante ak julli suba 15 minutes la dañoo sib ku naafila ci diggante booba laakin waaye nag saal wirdi ki amoon dogab jaamu yàlla bu mu sason bu mu sason boppam façon ci xolam ne diggante boobu daal dama fiy naafilaal sunu borom juróom benni rakk mbaa ñeent mbaa ñaar kooku te daan ko def ba bis nag ah ngëmment nelaw yu bari tax talu koo def mu ne kooku mooy saal wirde jaamab boobu nag sason boppam ak jaamu yàlla te nelaw taxoon mu tarde koo def yuraa gisees na jawwaa suhoo ees daganal ko foofee nag ca diggante booba mu naafi la fa mooy diggante julek fajar ak julleeg suba mu def fa naafila yooyee mu sosoon boppam lowo ci jëmmam dong nag gisaa xale ndax da ko notoon ay nay nihi ay gëtam alkara ngëmmen la kon daa gëmante woon ba nelaw ba tax mënuta def loole mu boppam kooku bu yeewoo may nañ ko mu def loola foofa muy naafi la yooyee kurut kooku nag dañ ko sip dañoo sip mu naafi la ci diggante boobu wa naflu bokk nañ ca ñu sip naafi la in jalasa bu demee ba toog foofu xal min bari ca kaw min barba imaamu jumxatin imaam jawar a jiite juma bu ñëwee ba toog ci min barba dañoo tere ku naafi waaye nag waaye nag kurhun sip ga ñu sip naafila ca ba imaam ba toogee ca kaw minbar ba duri foofi lañu xame ni foofa dong nag lañ sibe naafila faqat dong ca jumaa ja kon boo ñëwee avant booba mën ngay naafila ba imaam ñëw bu toogee ca minbar ba nag dañuy tere nag ku naafilati na ñëpp toog déglu ko ndax déglu ga ñuy déglu imaam muy wax toog di def xutba ba mook naafila lañoo yem ci yool yaa ngi jàng téereb sëriñ Tuuba bi ñuy wooye al jawharu nafis wurus wu sell wa di la jàngal lëgg-lëggi fiq ci lëgg-lëggi diine nañ ko war a xame xàmmee ko na jëfe ko na te deesu ca juum wasalaamu aleykum